waaw euh, dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñu sas ñi yore gox-goxaan yi moo xam euh, maire yi moo xam euh, conseil départementaux yi muy ñuy taxawu population yi ci wàll yëpp ba ci lu jëm ci wàllu santé xam nga nit ñëpp feebaranduñu alhamdulilah lu ñu feebarandoo ñenn ñi nga xam ne ñoom ñooy jot a feebar ci benn jamono xëy na ñoom mën nañoo bañ a mën a am kattan ci wàllu koom-koom bu ñu mën a jëlee en charge seen bopp waaye bu fekkee ni ñëpp ñi feebar ak ñi feebaragul ak ñi nga xam sax xëy na xalaatu na gunu feebar ñoom ñëpp ku ci nekk jël na sas tuut ñu dajale ko maanaam ñiy jot a feebar ci benn jamono dañ leen mën a jël en charge parce que du at aju rek ci kàttanu beneen nit mais kàttanu ñëpp mooy dajaloo pour faj ku ne. alors loolu nag mooy xalaat bi lal couverture maladie universelle kon dafay am solo lu mu gën a yaatu ci ñi ciy dugal seen loxo. kàttan bi gën a yokk ci maanaam su kenn tollee ci jafe-jafe ñu mën koo taxaw parce que léeg-léeg nit am lu ko dal loo xam ne la mu laaj dafa takku ba moom bu dajale woon li mu liggéey yëpp ci ay at du ko man waaye ñëpp ñi nga xam ne dañoo wér te leen di ñaan ñu kon ne wér loola nuy dajale su dajaloo ñoom danañ ci mën a faj kooku nga xam ne moo toll ci jafe-jafe te kattanu personnel am mayu ko ko loolu mooy xalaat boobu su amee mais ñun ñi nga xamante ne dañoo dénk ñuy nekk ci wetu nit ñi ci biir gox goxaat yi mais loola ñun dimbali ñu la. kon ñun faaw nu dugal ci suñu loxo rawatina nag ba mu nekkee loo xam ne sas wu tegee ci ñun la kon atelier bii am tey jii muy lël bii nga xamante ni daje nañ fi pour waxtaane waajal forum bu gën a mag muy lël bu gën a mag bu war a am loola su amee du def lu dul dooleel doomu adama yi kon faw daf ñuy dooleel te bokk na ci li nga xam ne moom lañu sant. donc tey dañ fi woon ak euh, agence couverture maladie universelle ak collectivité territoriale yi pour mun ci benn atelier bi nga xamante ne. Nous avons préparé ñu forum bu la ak collectivité territoriale yi ñu xool saytu bu baax nan programme couverture maladie universelle au sein de la communauté et qui dit communauté dit collectivité territoriale donc loolu moo taxoon ñu ñëw tey di waxtaan ak euh, collectivité territoriale Je ma leen remercier bu parce que nous avons une représentation bu baax maire Thiès mi ngi et collègues maires, maire am yu Dakar wala si yeneen région y ñu ngi fi président conseil départemental yi aussi ñu ngi fi donc ñu njort dinañu arrivé si li ñu bëgg maanaam discuter ak nous. xool naka la contribuer effectivement au programme de couverture maladie universelle. xam nga léeg-léeg soo lalee soo nasee dara ba ba ñu commencé doxal day baax nga taxaw xool ndegam ni ñu ko doon doxee noonu lañ ko nammee woon wala xejna amna lo xamantene wala ci la ci programme bu nek daf koy am donc lolou motax tay ñu dajale pour ñu dañuy rek effectivement nan lañuy jooyante yenn aspects yi bi nga dinañu suñu couverture maladie universelle